tàmbali li nga xam ne mooy la une des journaux eh, bari na xanaa rek ñu dox ko fi nga xam ne mooy ndorteel bi ak euh, élection législative yi surtout à campagne bi patron du quotidien L'As Amadou Ba euh, tête de liste nationale de la coalition euh, Naforé je veux prouver à la jeunesse que la gestion des affaires publiques n'est pas l'apanage des seuls politiciens voilà direct patron wu Euh, L'As la L'As quotidien voilà. L'As waaw. voilà ah ok il est candidat kon. Ah, il est même maire il est maire euh, bi nag laay fàtte bo journal bi quoi depuis euh, les élections locales quoi. d'accord la Amadou. Uh-huh. leneen li nga xam ne journal bi xëy na A est venu aujourd'hui avec plus de détails libération de Nabou sans audition sur le fond caisse. qu'est-ce qu'un euh, juge intérimaire euh, tous les détails à découvrir euh, à la page 6 du journal leneen li nga xam ne journal bi ñëwaat na ci muy sur les circonstances du décès de Mamadou Ba le parquet ouvre une enquête décès de Mamadou Moustapha Ba ancien ministre des finance ba tey mu ngi jur coow mbir mi fi mu toll nii sa commence à se compliquer ak li nga xam ne mooy ñaari document yi nga xam ne procureur génne na ko dinañ ci ñëw ci kanam leneen li nga xam ne tamit journal bi xëy na ko muy euh, wàllum euh, politique mm-hmm. ak euh, campagne électorale bi Sonko occupe les jeunes Barth promet le paradis Anta ulcéré par le sort de Pikine voilà fi mu toll nii comme ni nga ko waxee sànq euh, yaay booy ñu ngi ci dernier tournant wu li nga xam ne mooy campagne électorale bi ndax vendredi minuit lay jeex ba tax na Ousmane Sonko moom comme ni mu ko defee depuis le début rek euh, ci la ne euh, moom ak ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi heure bu wootee ñu wuyu ko li mu leen xamal mooy au lieu de suivre voire de partager les calomnies les discours de haine la manipulation faites des recherches sur le programme de développement dans les défendre partout au cas de besoin voilà noonu la leen wax moom nee na au lieu que ñuy topp riiru xuloo bi xasante bi ak manipulation bi dañ dem gëstu ji li nga xam ne mooy vision 2050 bi am ci Euh, xam-xam ba euh, fu ñu dem euh, ëllëg daal di koy mën a défendre pendant ce temps kii di Barthélémy Diaz moom mi ngi promettre mots et merveilles surtout li nga xam ne moo jëm ci wàllum xëyu ndaw ñi ak li nga xam ne mooy expérience professionnel ndax léegi moom dañoo nekk ci dëkk bu nga xam ne à chaque fois même fekkee da nga am ay diplôme aussi dañ lay laajte expérience professionnelle ba tax na ni ñëw na ak ay promesse ci lu jëm ci xëy li pendant ce temps Anta moom la présidente de arc li ko soxal mooy euh, sooru pikin ndax gis na ni euh, Pikine li ñuy dund euh, metti na cimetière yi fees na fi mu toll nii amatul place li nga xam ne mooy inondation yi mu ngi leen di ak surtout insécurité bi nga xam ne mu ngi rôde foofee ca Pikine ba tax na fi mu toll nii moom loolu mooy problème principal bi nga xam ne bëgg na ko régler si une fois mu daal di dem ci assemblée nationale mm-hmm. pendant ce temps ca campagne bi toujours njum Euh, ànd nañu ak Amadou Ba Amadou Ba toj na njum rajax avec euh, la compagnie de Cheikh Omar Anne bi nga xam ne moom moo ko fa teertu Amadou aux anges selon Amadou Ba les responsables politiques étaient beaucoup plus nombreux lors de la campagne électorale pour l'élection présidentielle mais nous n'avions pas pu réussir une telle mobilisation li mu wax ni ñi ko toppoon ci campagne présidentielle bi bari woon na trop waaye li ñuy mobiliser keroog foofee ca njum mosuñu ko am autant euh, bi muy euh, def li nga xam ne mooy sa campagne électorale ci élection présidentielle yi nga xam ne Euh, moom la ñu daal di euh, jógee leneen li nga xam ni journal bi xëyee na ko muy euh, victoire bu rafet bi rëg am fi mu toll nii moom mi mu nekk champion du monde ci NMA après avoir arraché la ceinture de champion du monde à Anatoly ñi mu sant moom est-ce du waxee tëb Anatoly <laughs> daal dégg mel <laughs> nu rek Reug Reug rentre au Sénégal waaw war na noo def nag benn kii bu rëy nag. dem jëli ji ko jëli ji nag Reug Reug nag champion du monde bu ndaw di. daan na daan na ñëpp. ah daan na ñëpp de ah ayca Omar. Euh, one championships. Mm. Euh, ñoo ngi koy organiser à Singapour. Euh, Singapour c'est une île qui se trouve en Asie. Mm. Euh, bon boo xoolee ay malaisiens ñoom ñoo fa gën a dëkk quoi mais c'est un centre financier mondial. Mm-hmm. doon benn dëkk boo xam ne nii en fait euh, Singapour dafa bokk ci les cinq tigres asiatiques quoi maanaam dëkk la boo xam ne nii dafa am dynamisme économique yooyu mm-hmm. léegi nag euh, ñoom kii bu ñu organiser c'est une ligue très suivie mooy kiiw affaire MMA bi. Mm-hmm. am nañ ci partenariat ak Fox News. Euh, Fox Sport ñoom ñoo koy diffuser c'est suivi par plus d'un milliard de personnes ah mooy mm-hmm. événement bu ñu doon kii Reug Reug donc Reug Reug tey ji boo xoolee il est plus célèbre que les Balla Gaye les Modou et consorts parce que bon ñu ko seetaan en fait à travers le monde surtout en Asie xam nga bon Modou sax bon il a soulevé la flamme olympique aussi quoi te bon ñu bëri seetaanoon nañ ko mais quand même Reug Reug aujourd'hui toll na si si beneen niveau ba pare nag euh, euh, catégorie poids lourd bi la jël quoi xam nga MMA tamit dafa am ay catégorie yu bëri ba pare ay ceinture la yu bëri comme nu mu amee si boxe rek da ngay gis euh, boxeur yu mag yi bu ñu gañee d'habitude da ngay gis ñu taq des fois ay ñetti ceinture ñaari ceinture ainsi de suite donc ñoo ngi koy félicité ah kon nu ko président de la république waaw waaw kay kon nu ko président la république kiiwee parce les sportifs aussi son des ambassadeurs boo fàttali ko en 2002 tey ji ñu xam Sénégal ñu bëri 2002 lañ ko xamee ndax ñoo ngi fàttaliku ay ñoom El Hadj Diouf ba gars yi commencé di def si ñoom ay kii ba si ba si Serigne Touba ah parce que El Hadj Diouf euh, kii kii yu mu doon def di wane kiiwu Serigne Touba moo taxoon man maa ngi fàttaliku benn genre kii bu ma jëndoon waa pour Serigne bu kiiwu Serigne Touba boo xam ne chinois yi ñoo ko defaroon quoi donc euh, sport tamit euh, kii boobu la am boo xoolee tey naar dem ba investir sport tax ndax dafa am benn aspect communication boo xam ne nii sport da ko am donc nos félicitations à Reug Reug donc leneen li moom mooy affaire politique bi ah wax nga ko Amadou Ba qui s'est rendu dans les zones inondables mooy dans la vallée du fleuve Sénégal euh, bon ak euh, mobilisation bu fa am euh, bi nga xam ne nii Cheikh Oumar Anne def na ko donc euh, mu félicité ko ci loolu quoi par rapport ak doon ko xam ne nii maanaam il est toujours resté à ses côtés mm. depuis lors le Thierno du Ndioum euh, jàppale ko te ba léegi moom bàyyiwul kontaan lool ci si mobilisation boobu moom Amadou Ba léegi Amadou Ba nag ñëpp xam nañ ni si euh, campagne bi am na ñoo xam ne nii peut-être il n'était pas trop engagé à ses côtés mooy ci présidentielle bi mais c'était pas le cas de Cheikh Oumar Anne bi nga xam ne jàppale na ko bu baax a baax l'autre chose bon bi wax si xëyu ndaw ñeeg yooyu ak formation professionnelle daan ay un million de jeunes yoo xam ne nii dinañ leen former yooyu Anta Babacar Ngom mu ngi kii déplore la situation à Pikine insécurité insalubrité bon inondation gis ni en fait Pikine mérite un autre sort ndax tamit Pikine boo xoolee c'est un très grand département l'un des départements les plus peuplés du Sénégal waaw te mais nag euh, xanaa xamoo terre bi terre bi terre bi bañ koy defar quand même xaw na changer un peu le visage de pikin mm. ak fépp fu mu jaar parce que pikin boo xoolee ay Kër Mbay Fall ci département de pikin la bokk euh, yaa pikin ci wàllu boppam ak yeneen secteurs yi quoi ay caaro yëmbal sax est-ce que bokkul ci Pikine euh, yéen Kër Massar lañ leen yóbbu non mbaaw ci Pikine la bokk yëmbal xam nga kii yëmbal est ce Kër Masar la mën a bokk. Kër yëmbal yëmbal waaw yëmbal si Kër Masar la bokk mais daal Pikine euh, boo xoolee xam projet structurant projets structurants. yàggul. xam nga acte trois bi ak terre beeg ak yenn kii yeeg yooyu nga xam ne des fois day xaw a euh, day détaché lu bari quoi day day changer ay secteur quoi. waaw mooy ba ñuy ba ñuy ba ñuy def kii euh, euh, comment dirais-je Kër Massar bañ koy def département dañ jël lu bëri lu nekkoon ci Pikine def ko si Kër Massar am na loo xam ne ni sax moo am na loo xam ne nii nekkoon ci Rufisque sax noonu la demee quoi donc euh, ante Babacar Ngom Ousmane Sonko moom gis ngeen lu mu wax jeunes yi que ñuy porter en fait projet de développement bi moo gën nekk si réseau sociaux yi di xuloo di wax si loo xam ne nii amul njëriñ donc euh, mu ciy gën a ñaax jeunes yi parce que dégg nañ ko sax muy joxe exemple si euh, président de la république lu mu wax ni en fait dañuy lancer benn euh, usine boo xam ne day defar ay matériel militaire au niveau de Mbacké waaw mu doon en fait projet bu baax am parce que loolu tamit la gars yi di parce que man temps yi gis naa ni sax. moom su su su su commencé di wax sérieux di wax kii hmm. li li muy bañ xale yi partagé ko yëpp moo koy wax. waaw loolu la parce que parce que tamit euh, parce que moom rek la ñuy moom la ñuy partagé waa mhm. su su su suy wax li li mu bëgg xale yi wax ko xale yàlla may na ko loolu Ousmane Sonko mhm. yàlla da koo may ne xale yi dañ koo bëgg mhm. moom li mu bëgg a jàllale mën na ko jaare si xale yi xale yi di ko dagg di ko partagé li mu bañ ñu partagé ko bu mu ko wax waaw boo xoolee si discours am bon maa ngi koy dégg muy euh, gaaruwaale Madiambal Diagne naan moom ma nekkuma ma koo xam ne nii euh, maanaam moom daal dóor fayu quoi la wax waaw dóor dóor waaw waaw waxu wax na waxu dóor fayu ainsi de suite te dóor fayu boobu nag bon jàpp naa ni waroon na mën a ñàkk parce que en tant que premier ministre quand waaw xam naa ni en tant que premier ministre quand mënoon na bañ a yegg si loolu leneen li euh, li nga xam ne nii ñëpp bon xanaa ñëw tamit ci Amadou Ba ah Amadou Ba le directeur de publication de l'AS moom tamit bon qui s'est lancé aussi dans la course aux législatives bëgg a gagner Euh, Amadou Ba doon actuellement maire bon village bi sax fat kii commune bi sax fàtt naa ko moo ngi si Sénégal oriental vous pouvez retrouver le nom de la commune dans le journal l'autre chose nag mooy en fait c'est ce qui fait l'actualité actuellement mooy euh, benn bi mooy affaire Mamadou Moustapha Ba Euh, les circonstances de son décès xam nga ni waxoon nañ ni dee na ba ñëpp jàpp ni en fait Mamadou Moustapha Ba normalement waroon nañ ko denc Nioro parce que amoon na ay tiraillement entre sa famille ak euh, bon en bon entre les membres de sa famille ci lieu buñ koy denc mais finalement mujj nañ si déggoo mais dégg nga ni euh, ki nga xam ne ni mooy le procureur la République près du tribunal de grande instance de Dakar mm-hmm. moom mu laaj en fait euh, ouverture du enquête pour élucider euh, les circonstances waa kay pour élu maire Amadou Ba ah waaw waaw waaw Amadou Amadou Ba waaw commune de Tamba dans le Sénégal oriental ku la envoyé loolu xanaa Moussa waaw fa la nekk waaw. Mhm. Euh, qui a demandé euh, l'ouverture d'une enquête. pour mhm. euh, ñu ñu xool en fait les circonstances du décès loolu nag actuellement moo lëmbee réew mi parce que bon. Euh, nee na y des éléments en fait yu wane ni euh, der dee bi c'est pas quelque chose de naturel léegi dégg nga ni ñu ne en fait envoyé nañ une commission rogatoire pour saisir en fait la justice française pour ñu mëne ay enquête pour xam effectivement moom lan moo ko war a rey ak yooyu moom mooy Mamadou Moustapha Ba mm-hmm. léegi nag dinañ xam après ah l'autre chose xam naa ni c'est affaire u Nabou Leye xam nga ni nabu lay yaa ngi doon wax par rapport ak libération beeg yooyu xam nga ma la ne woon en fait euh, maa la doon insister ne d'habitude nit bu fekkee ni dañ koy topp ci dossier boo xam dans le cadre de l'instruction d'habitude balaa ñu laa libérer balaa ngaa bénéficier demande de liberté provisoire am audition au fond mm-hmm. fonds boobu lu muy lu muy maye mooy tey ji juge bi ñoo ngi lay topp procureur laaj na ñu placer la sous mandat de dépôt mu topp réquisitoire introductif procureur bi placer la sous mandat de léegi yow euh, ki nga xam ne moom la ñuy topp bu demee ba euh, bëgg a demande liberté provisoire d'habitude avocat yi dañuy xaar ba juge bi déglu ko au fond léegi juge bu dégloo au fonds nit ki dina mën a xam kan laa gën a war a mën a may liberté provisoire wala kii inside de suite mais on a constaté que c'est pas ce qui s'est passé euh, dans l'affaire Nabou Leye euh, bon c'est maître Kourechi Ba qui a alerte parce que man bañ ne libéré nañ ko sax man jàppoon naa ni audition au fond amoon na quoi parce que d'habitude c'est ce qui sa passe léegi nag bon hier euh, j'ai tenu à demander à des magistrats yoo xam ne nii euh, peut-être ñoom dinañ la mën a éclairer euh, par rapport ak audition au fond boobu nee nañ ma nag c'est pas une obligation y a y a y a aucun aucun texte boo xam ne nii qui interdit le fait que ñu libéré la nga bénéficier demande de liberté provisoire audition au fond mais nag nee nañ c'est très rare quand même c'est très rare loolu am parce que d'habitude juge bi il préfère déglu la ba pare mooy juge d'instruction parce que juge d'instruction dafa am dans le cadre de ces dossiers là bokkul ak dossier yi nga xam ne ni flagrant délit la lii day am juge d'instruction léegi juge d'instruction bi jël na décision boobu l'autre chose mooy euh, le fait que mu insister ni euh, c'est un juge intérimaire moom moo jël décision boobu c'était intéressant aussi de savoir la mooy juge intérimaire parce que ñu bëri bu ñu déggee juge intérimaire du ñu comprendre bu baax léegi nag quand on a demandé en fait on nous a expliqué que tey xam nga actuellement ñoo ngi ci vacances judiciaires yi normalement ci mois de novembre bi la war a jeex euh, normalement sax instant yi war na jeex parce que Nabou Leye ñoom ils ont introduit la demande de mise en liberté provisoire le 21 octobre léegi le juge bi nga xam ne le juge d'instruction bi nga xam ne nii moom moo yore woon dossier bi léegi moom bu demee vacances judiciaires mën na jël dossier bi dénk ko benn beneen juge beneen cabinet pour loolu day bañ rek yenn dossiers yi retard léegi juge boobu ñu dénk ko en attendant moom muy ñëw juge boobu la ñuy woowee en fait un magistrat intérimaire quoi en fait kooku dafa nekk waaw moom dafa nekk ci beneen cabinet léegi kii day dem vacance judiciaire Euh, mais mais quand bon c'est c'est un magistrat hein, ça veut pas dire que c'est un magistrat stagiaire wala un magistrat mais c'est un magistrat à part entière léegi nag euh, xam naa ni euh, leen tamit da ko si xam parce que loolu maa ngi si doon insister xam nga dafa am lu ñuy tuddee clameur populaire te juge warul xool clameur populaire parce que affaire u Nabou Leye bi parce que juge tamit day xool sur des faits quand même bu xoolee nii dans les éléments d'appréciation yu mu am aucun élément d'appréciation ne permet tey ji moom mu téye Nabou Leye euh, en détention moom da koy mën a jox liberté provisoire comprendre nga nag cas de de de Ndella Madior Ndella Madior su ma yee su ma juumul sax dossier léegi ñu clos ñu clos enquête bi te moom depuis avril ay avocat ñu ngi dugal demande de ah, liberté provisoire c'est différent c'est parce que juge bi fële sëriñ est-ce que ay comprendre li may ah, del bàyyi xel nag waaw parce que yow tu comme que maanaam xam nga dans le cadre de Ndella Madior Diouf ça peut être différent tey ji Ndella Madior Diouf dossier juge d'instruction moo ko yor di mener enquête am les juge d'instruction bi tey ji bu fekkee ni gars yi def nañ demande de mise en liberté provisoire juge d'instruction bi xool ni ah Ndella Madior y des éléments accablants yoo xam ne ni tey ji moo ngi ci kaam on juge d'instruction bi foofu du la c'est ça pas dire que boo defee demande rek dañ la ko war a may de c'est par rapport ak élément yi ñuy xool moo tax ma ne la Nabou Leye aussi euh, parce que maa ngi dégg sax beneen journal di ko wax ne xam nga des fois aussi euh, les gens l'ont tellement chargé aussi que les ni ci jàpp nii euh, Nabou Leye peut-être moo def wala deful mais juge bi daal moom bu demee ba jox ko demande de liberté provisoire ça veut dire que peut-être y a pas des éléments suffisamment à charge yu tax mu mën koo téye te est-ce que c'est le cas de Ndella Madior Diouf loolu la quoi c'est ça la différence waaw c'est c'est c'est mais nag fois tamit des raisons politiques dina ko waral ah. comme comme kii bii nii man de rafet naa si njot yow da jàpp ne ah waaw comme bii quoi waaw waaw ah, waaw loolu la quoi Mhm. dama ne fois mën su fekkee dafa waaw waaw loolu moom bokk non non loolu loolu c'est loolu loolu c'est loolu différent parce que loolu d'habitude loolu d'habitude procureur mooy def loolu xam nga boo gisee dans le cadre de du dossier de Ousmane Sonko ñoom Bassirou jommay Faye ñu toppee leen lan pour acte terrorisme léegi yow tey ji buñ la dafa am yenn kii yoo xam ne buñ la ko toppee bu procureur demandé Euh, ñu placé la su mandat de dépôt xam nga am na yoo xam ne procureur mën na laaj juge d'instruction ne ko kii dama bëgg nga placé ko su mandat de dépôt pour juge bi bañ mais am na charge yoo xam ne bu loo ko toppee comme affaire terrorisme procureur bu laajtee mandat de force juge bi da koy appliquer comprendre nga ti dossiers yi ñoo xaw a ute quoi te am na yoo xam ne noonu tamit de juge bi même bu bëggee euh, euh, libéré la foog mu am caution procureur ça de sa dépend quoi xam nga droit dafa xaw a dafa xaw a sew quoi circonstances yi ñoo xaw a ute quoi. lay lay. lay lay. dama. équitable man man man man. ci man man justice bi depuis man justice bi muy doxee actuellement xam nga man je fais la différence entre le procureur ak le juge hmm. bu fekkee ni un procureur moo jël une décision mën naa si xaw a am xel ñaar parce que procureur xam nga lien bu mu waa lion lien bu mu am ak le ministère de la justice ak les les pouvoirs publics quoi mais quand c'est le juge en fait c'est il y a les magistrats du siège quoi ñooñu c'est c'est un peu différent te euh, depuis le nouveau régime quand même man gisuguma fi euh, benn juge boo xam ne nii peut-être moo ngi def ay agissement yoo xam ne gis nga même affaire Bougane bi li ma la waxoon dama ne jàpp naa ne bu demee juge bi dina ko bàyyi te effectivement c'est ce qui s'est passé ndax d'habitude genre dossier yooyu donc euh, juge yi nañ leen kii rek nañ leen jox cër rek respecter seen seen seen kii waaye man <laughs> tu tu as des comptes à nous rendre lëy lëy dama. ça dire qu'elle est innocente. ça veut pas dire le journal. ça veut pas dire qu'elle dire aussi qu'elle est blanche tamit loolu tam nangul waaw waaw ah. loolu laa lay moom du d'accord maa ngi koy doog a dégg ñëw. ayca le euh, soleil la ñuy dem dooree ko ak sommet extraordinaire de Riyad bi nga xam ne tey jii lay euh, démarrer le monde musulman cherche des solutions pour la Palestine et le Liban. voilà euh, demb xaw ma démb la le président Bassirou Diomaye Faye quitté fii nga xam ne. mooy Dakar pour euh, dellu Arabie Saoudite ci OCI bi nga xam ne euh, sommet bu spécial la ngir ñu daal di xool na naka la ñuy euh, def ba indi ay solution ci Palestine ak Liban nga xam ne fi mu toll nii ñu ngi leen di bombardé ñu ngi dund ay jafe-jafe yu metti leneen li nga xam ne journal bi xëyee na ko muy à la disparition du ministre Mouhamadou Moustapha Ba à suspicion autour d'un décès selon le procureur de la République l'autopsie a révélé plusieurs éléments qui sont de nature à attester que la mort euh, n'est pas naturelle. La levée du corps et l'inhumation renvoyée à une date ultérieure, la famille du défunt mécontente réclame la depuis euh, comme ni ko source a defee rek ñoom it euh, le soleil ci noonu lañ ci daal di ñëwee leneen li nga xam ne journal bi ñëwaat na ci aussi muy wàllum politique ak Abdou Karim Sall tête de liste de la coalition And Kóolute ngir Sénégal moom mi ngi xamle ne tous les signaux indiquent notre victoire à Kanel voilà fii fii FM la mais man je croyais que mi ngi ci takku wàllu dafa yor coalition boppam kon. Fanta Sall euh, moom it euh, àdduna bu euh, mi nga xam ne ci député sortante yi la bokk tête de liste départementale de la coalition Takku Wallu au nom du mécénat Moussa ñu jàll ci beneen journal l'observateur la ci xëtam gu njëkk ñëw na ci euh, li nga xam ne euh, mooy entretien avec docteur Abdoulaye Ndoye vice-président de Rewmi le malaise Rewmi au sein de Takku Wallu révélation sur la supposée bruit entre Macky et Idy yow laa war a laaj sax ana Idy hmm? Idy hmm? <laughs> ana Idy mu nag soow hmm? <laughs> nitu Thiès na ci élection yi nii nga taxawee nii laa taxawee sama seetu jékki-jékki ne waaw moom bu génnoon ne voté leen parce que. gis naa ñaari cadre yu fàqee ku ndaw. Ah! dara yàlla toppewu leen dara waa réew mi ah, yàlla toppeew leen dara mbaa yankoo ba bokk si. du yankoo ba de. yankoo ba moom fu idi ne fa la ne. idi maandu moo yëy maandu nag te maandoo ko war fi ne. Ah, man mii. Ah, ah, euh, kii la woon dañoo dafa amoon benn site internet bu bindoon que ni Idy dafa tweeté ne ñu jàppale parce que ñëw wàddi nañ weddi nañ transféré woon naa la ko waaw man mii waaw mais weddi woon nañ amul woon démenti non am na démenti am na démenti cadre réew mi ñoo génn mais yow mii yaa ma ko transféré wu man mii c'est <laughs> <laughs> sûr c'est sûr war na ma ko ma xool c'est sûr <laughs> yéen Fatima mi léegi ban monde la nag. yi may transféré bëri na de c'est sûr que man maa la ah. transféré nag ngi. dama yàlla baax na ah, ah, maalu la Fatima bind. voilà Thiès euh, drogue une fille morte d'une overdose de volet dans une boîte de nuit. Thiès boobu nag moo ma naqari ban boîte de nuit la ci boîte de nuit yi ca Thiès. boîte de nuit daal naa doo fa des. loolu la mos fa des. Thiès lañu wax wala région wala wala région bi lañu wax rek wala Thiès lañu wax de. Thiès daal lañu wax. ah waaw daal ñoo ngi ñoo ngi. moo tax ñun dañu war a tibbiwaat benn rubrique sociétale ah parce que foog ñu wax ci affaire sociétale yi quoi parce que volet yooyu moo ngi rey xale yi de. luy bibière. ah mooy la kii gros popotin. BBL bi c'est différent de euh, kii bi mu tudd esthétique bi xam ma la wax BBL bi en fait da ngay xool fi am graisse ci yow su nekkente ne da amoo amoo ay fes mais da nga am biir mën nañ la extirper graisse bi nekk sa biir ñu defaral la ko sa fes yi. waaw mais nga am vente est-ce que amul ay kii amul ah, ay. kii ah, y a des risques. Ah. gars yi soo gisee buñ la dugalee l'équipe niñ la koy pompelee. fekk yow nga tëdd mel ni ku faat ngay xam ne lii lu ko fi jar ah? mais man xam nga lan moo jaaxal temps yi ah euh, ci affaire drogue bi euh, crack xam nga crack crack bi léegi dafa commencé euh, lëmbee dëkk bi de mooy commencé kii si kii dugg si rue bi quoi dans la rue moom tamit l'observateur ñëwaat nañ ci li nga xam ne mooy coow li jamono ji le récit qui remet tout en cause pourquoi sa femme est attendue à la DIC les nombreux appels et SMS sans suite et le à deux en France à sa recherche les véritables euh, les, la vérité sur la date du décès et la découverte du corps sans vie on ne peut on ne peut pas opposer le certificat de genre de mort à l'autopsie l'avis du médecin légiste voilà L'Obs daal ñëw na ci lu bari jëm nag ci wàllum jabaram mm-hmm. euh, lu tax ñu convoqué ko dikk euh, li nga xam ne mooy appel yeeg SMS yi euh, aller retour bi mu def France mm-hmm. L'Observateur ñëw na ci c'est à découvrir aux pages 2 et 3 du journal Moussa ñu jàll ci ci beneen journal les écoles la ñoom ci seen xët gu njëkk ñëwaat nañ ci li nga xam ne mooy disparition démb bàcc jelongaal les frères jelongaal euh, bàcc samba démb la daal di euh, décédé bàcc de gelongaal voilà papis moom moo décédé woon si accident bi ok léegi kenn moo si des tey na gudd fan ay xale yu waaw ay xale yu am imagination. macha allah. Euh, dernière semaine de la campagne la coalition Sàmm Sa à Dakar caravane proximité euh, au menu du programme. Mhm. Euh, bilan des euh, lâchers d'eau le calvaire euh, sans fin des populations 56 000 personnes déplacées 456 ménages dans les abris provisoires 18 000 enfants en âge scolaire pour actuel. sont actuellement touchés par la fermeture des écoles, 913,5 hectares de culture inondés, le choléra guette euh, les plus jeunes. voilà dafa mel sud-est bi la mhm. effectivement waaw mooy bi rek euh, crue du fleuve bi rek mooy côté région Saint-Louis Matam yooyu quoi. voilà décès de l'ancien ministre des finance l'inhumation de Moustapha Ba en suspens voilà comme ni ko yeneen journal en suspens comme ni ko yeneen journal yi defee rek ñoom it noonu lañ ko defee waaye jox nañ kàddu nga xam ne mooy Me El Hadji Diouf li mu wax mooy tout ce qui importe la famille c'est de déposer de euh, disposer du corps et procéder à son inhumation voilà ñoom nee nañ leen jox seen seen corps ñu mën ko euh, ñu mën ko denc liberté provisoire de Nabou la famille de Aziz Dabala interpelle le procureur général un avocat de Nabou malgré toutes les fables qui ont été racontées le dossier était vide il n'y a aucun élément de charge contre elle Omar kon lii nga doon wax sànq. waaw loolu laa doon wax sànq quoi parce que juge moom bu demee ba décider libérer la rek c'est parce que gis na ni. Ah, amul lu dëgër quoi. léegi léegi nag clameur populaire bi moom xam nga clameur populaire baaxul justice warul dox ci ay clameur populaire. waaw nañ ko tëj nañ ko tëj nañ ko tëj ñu jàpp ne ràpp tëj fekk yoo waa ji waaw. le Walf Quotidien euh, ñoom it ci xëtam bu njëkk ñëwaat nañ ci victoire rëg-rëg bi waaye tamit li nga xam ne mooy coowal euh, bi topp euh, Mamadou Moustapha Ba <laughs> coow bi topp Mamadou Moustapha Ba euh, journal bi euh, ñëwaat na ci ñëw na ci mbirum euh, Cheikh Bamba Dièye allié de Pastef nous nous luttons point de notre loolu la daal di xamle leneen li nga xam ne ñëwaat na ci aussi muy programme de campagne bu sàmm sa kàddu Barth veut faire de la Médina un pôle économique. Médina. moom. muy avancé kër yooyu. ba ñu war a defaraat changer. mais dina moom foog ñu jug si quoi waaw foog ñu jug si. kër yi mën na nekk mais nag il faut ay réformes. mais am na ay am na ay am na ay koy day ah? waa sax. ah moom ak yenn kii yu ndar yi nag ñoo yem ay bâtiment yi ak. non colon yi la. waaw ndar yi. bâtiment colon yi la euh, waaw waaw mais les quatre waaw. mooy si ñaari dëkk. dem boo demee xoolee sax seen kii bâtiment yi bi sax benn. Moussa ñu ñu dem si beneen journal. Moussa on y va. yoor ah. la ñëwaat na ci li nga xam ne mooy euh, Ousmane Sonko ak euh, méga meeting bi nga xam ne def na ko entre Diourbel ak Louga magnifique grandiose magique euh, Mbacké Casablanca voilà démb stade Iba Gueye bi gis nañu quatre candidats yëpp yëpp fees. Mm. Ah, ah, ah, ah Sonko nii ku daa mel ni ku mën na def de. ah ku mën na def. meeting de clôture bi est-ce que lu wootee ab maître Abdoulaye mu defee woon levée de fonds ya. wala ah arena defee levée de fonds ya. moo gën a moo gën a rëy. Hmm. ah yàlla baa mën na ko faa bu defee mu fees de. yàlla moom may na ko mbooloo dëgg dëgg. waaye nag neewul 500 millions yooyu la defee lii yëpp 500 millions yi jeex na yàgg na. waxante dëgg rek <laughs> gisoo Birahim Touré maa ngi Birahim Seck maa ngi dégg mu naan gars yi ngi utiliser les moyens de l'État waaw mm. ah. selon Birahim Seck waaw selon Birahim Seck ah mais mais certainement ñoo ngi koy utiliser waaw ah, da nga mën a ah, da nga mën a mhm. champion du monde waaw waaw on termine par le sport Reug mm. Reug ak euh, kii woom ceinture am bu mhm. bi après euh, victoire bi ah, mu am président Diomaye félicité na ko ministre du sport voilà président nee na ko il honore le Sénégal. Ah, et inspire toute une génération moom moo tax Sénégal yi xam MMA bi. waaw Bombardier daal retraité na xanaa si ah, MMA. Bombardier Bombardier si si si. mais en fait en fait Reug Reug il est dafa dafa battre les records de Bombardier au fait voilà. est ce que mës nañ ko mës nañ ko daan wala bu demee bari non non ah, non MMA lañ ko gën a kiiwee moo tax gars yi Euh, moo moo ko may sax beneen envergure ci làmb ji quoi après si lay ñëw daan bombardier janvier je pense waaw mais nag làmb ak MMA bokkul de. làmb fii kii waaw c'est kii ak MMA bi da leen di jaay mbapat day mbapat ak gaay day mbapat ak gaay de MMA hmm? bi day mbapat ak gaay te fii gisuma fi nopp rëg-rëg bu kii man xam nga mbër dëgg. balaa ma ah, leen ko nekk waaw foog nopp yi mel nopp Modou Lo nopp Balla Gaye ma xam ne di nga am contact mais Reug Reug ay noppam danoo normal. Ah. <laughs> kon xam nga ni fii làmb ji su fi ñëwee bokkut ak fee de. mais moo gën a metti làmb téeméeri junni yoon. foofu lépp la ku yëpp la. waaw ah, lépp la fii waroo dóor ci doq waroo mbéj. yooyu yëpp vraiment de boo deewee si arène bi sax garaaw. gisoo mooy douze lañ ciy def. Hmm. Ah. man du ma ko seetaan du ma ko jàpp parce que xale yay tax. Hmm. Hmm. ah voilà mën naa delloo avance. ah yàlla baax na ah mën na delloo di. non non day dem. Ama Reug Reug ñooy ñooy bëri en janvier. fii nii ah, waaw. Ah, moog Boy Niang. ay Boy Niang Boy Niang la Boy Niang bu Pikine. non bu dee bëree bi fii la du ko am problème. ah. bëri na fii. Ah, moom moo mën Boy Niang moom. Reug Reug ak Boy Niang bu Pikine la. Reug Reug moom moo mën Boy Niang. waaw mais ah, waaw waaw. boo ko mën génn si yooyu. waaw boo ko mën de. mën na laa <laughs> daan mu am bac. ah moom ko am na bac am dafa am bac ayca mu ngi noonu ñu jàll ci deuxième partie bi merci bu doo ko jox photo merci beaucoup Aminata on te retrouve demain pour euh, li nga xamante ni rek moom mooy euh, la une des journaux léegi léegi ñu ñëw ak yéen ci la dernière partie